ma wax leen luy dindi jaaxle nga julli ndox moo koy fondement mooy ndox mi ngay jàppe dana dem ba nekk ñeenti ràkka waaye bu ñu demee sax ba ñeenti ràkka yi jeex ñaari sujjóor yu yu mujj yi jeex ngelaw koy yàq gelawal moo koy yàq walla waaw bu ngelawal amee nag jàppaat julliwaat gars nag lu wax ñu ne déedéet nañ julliwaat rek jarul jàppaat téere yi ne déedéet ndox koy defar ngelaw koy yàq ngelaw ni mu tuutee da koy yàq kon jàppaat juliat lan mooy jàppaat julliwaat parrainage aat constitutionnel ba mu ba mu lépp am parce que am na ñu génn te génn te yàlla wax na ci alxuraan ne في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم بتي كريم با بكر دباخ man nag ñaara ma tënk benn bi extrémisme ci laa judd ci laa màgg ci laay dee bu ñu jaaree nii ma jaar nii man su fekkee da ma laaj dat passation passation de service bi xam nga fu mu baax mars deux mille vingt li tax ma wax ko. goudron bu yàqoo duñ ko defaraat ci ñaari fan parce que diggante mille deux mille vingt et ak tey depuis mars deux mille vingt et ak tey ñu ngi yàq république yi di dën di dëbb euh, euh, institution yi di saaga sëriñ si te gis ngeen bu ngeen sàgganee ba ñàkk ci dialogue bii ñun sëriñ si ñoo leen di àtte xaw ma tuwaale yi doonam tiwaawoonam Kaolack mais da ngeen di ñëw ñu àtte leen waaw ñun la sëñ bi le président doon wax ne am na force yu organisé force yu organisé pas pas seul nga am benn xalif général bu fukki xalif général wootee rek ne lii la muy lii muy jeex ah kay loolu la de parce que yéen politique yi ba ngeen fi nekkee da ngeen ñëw bokk jàllale léegi son may ñëw ba fu ma jaar gendarme ngeen ma du fii sama romb doom yoo romb la way monsieur le ministre xam nga yéen ñu bàyyi gannaaw yéen it mën nañ ko yor ndax Iran yor nañ ko ñu nga yor bombe nucléaire Maroc ko yor ñëpp ay sëriñ la li am solo nag mooy président yàqaluñ la réew mi lañ yàqal te réew mi da nga koo jox sa parole sa bakkan yaay premier soldat yaay premier soldat ma ne boo ñemewutoon fetal kon Casamance ba tey mi ngi tàkk waaw parce que jo doon xeex yaa leen jox nga naay fital leen ñu ne fii nga ne dem leen fa am na yow sax danga dangaa yow dugg ci front bi te kenn xamu waaw am na waaw euh, dama ne bu doon tukkalóor ma leen màkki dogataa dogataa dogataa xaamaay dogataa waaw kon nag euh, mbokk yi mbokk yi mbokk yi Seydina Aliou day ba waa ji ñëwee daf ko ameel bor fayu ko bañ koo ooyee tribunal dafa yow toog kon nag su fekkee ne am na ay ñu ñu liggéey ci tribunal buñ leen tuumaalee Abdou Mbow mën naa xam ndax daf leen daf leen di setalam daf leen di ñàkk a setal waaw bu leen setalee ñu ne ko Mbow noonu ah bu leen setalul nag ku setul doo mën a àtte xanaa lu raw loolu chauffeuru président bi képp chauffeur bi laa wax ne léegi bu ñëw gars yi filmé woon ko ñoo ne junni nii waa ji di ko jox un million ne nga ko dimbali pour mu ñëw nga jox ko audience ci saa si chauffeur bi dañ koy dàq dootul dawalal président wala waaw dem chauffeur moo mënta dawal bu setul wax nag koo xam ne boo àttee c'est fini yëf yi daal réew mi jàmm ji nga xam ne moom lañ bëgg a yàq bëgg a des périodes vides entre la entre une passation de service et une prise de service c'est là où il y danger ji nga doom xam nga fu muy dee buy juddu fuy juddu ni ñu koy génnee buñ ko génnee du baax rek du juddu wala du ñeew te bu ñeewul dara du baax affaire bi foofu la yi fi nekk yow président Macky mën nga ma seede am nga fi fukki ak ñaar benn yoon laa ma sa toog yow audience ci te Mouhamed Dionne mi moo ko it boobu léegi ñaarul te bu bu loolu loolu nga ne war a sawar na naa ngam yoon te nit ñi foog nañ ne euh, booy jàpp julli sax nag ma laaj ndax ma maa ngi jàpp te ñëw pour boo ma jotul te loolu amul te te yow xam nga ndax man da da may jox daraam mbir xam nga ko xam naa ko man sax ma daan joxe ah kay maaraan joxe mi ngi nii maaraan joxe man waxuma dara pour sama ko waaye Sénégal gii man toog naa euh, euh, gouvernement États-Unis oo ndaw suñuy wax jindaay ci euh, département d'État ñu ne ma dañ lay nommé ambassadeur itinérant ma bañ Zalmay Khalil Zada poste bi ñu ko jox man bi ma bañee lañ ko ko jox waaw euh, ku mën a am nekk ambassadeur itinéraire Amérique ma ne ko non parce que Ablaye Wade vient de nommer il y a deux te du ma bàyyi Sénégal ngir Amérique président sama mbokk sëriñ sëpp ceeb lañ lay ñaan ak diw ak suukar ak tamaate ak jiw gerte ak engrais ak faju ak ordonnance ak aji màkka ak umra ak lu ñu gàmmoog lu ñu ziyaara est-ce que mos ngaa jot sama leetar mosoo koo jot mosoo koo jot ndax man loolu dama koy jënd di ko joxe ah kay réew maa ñuy déglu te boo waxee ñu foog ne log a tax man log indiw ma dialogue ma indi waaw kay kon nag moom maa ubbi réew si président xam nga yow sa problème am na ba ñuy xale tàngal buñ naan buñ naan macc bu tudd forox neex billaahi forox neex xale yàq forox neex xale yi loo wax rek forox neex jënd dafa neex buñ koy tàccam di ko duñ bëgg mu jeex bu jeexee ñu bëgg beneen boo fi defaloon dara dañ ne monsieur le président au revoir au revoir moo gën a yomb lii yëpp booy see ñu xar ci suñu tànk bakkan ji nga fii àll bii fii lii nga fii def ñi la fi jiitu buñ ko defoon doo ko fekk kon leneen nga fiy def yow defal nga ba defal ñi ñëwagul defal nga cinq génération ci kanam mais man daal alaaji Ibrahima sama mag ju baax ja wàllu waxam nga naaw lay des ba mu laajee ñu ne ko Macky dernier délai am Sénégal mooy vingt cinq de février deux mille deux mille vingt quatre mu ne nii nii nii nii teen xool xaw ma nag fu mu doon xool ba mu yàgg mu ne déedéet date boobu ngeen wax du booy fekk de waaye bu weesoo dana fekk ba tey Macky fii nekk président Macky man du ma comme du ma la gis du la déey fii laa lay déey gis nga li defar réew mi mooy yëf yi ñaar rek la euh, maanaam euh, benn kii inclusive inclusive nag ñaar rek mooy tax mu inclusive d'une part Macky Sall d'une autre part Sonko ñu wote Macky gagné ñu continue jërëjëf sëriñ bi maa ngi jéggalu parce que dafa am ku waroon a wax ma fàtte ko au titre de la société civile j'invite monsieur Babacar Ba à venir prendre la parole au titre de la société civile dama fàttu